deuxième combat de la soirée Kalbara arbitre Kalbara Alma Dieye yi ñaari xale yaa noonu di leewaatoo Kalbara ngeen jàkkaarloo waaye Alma moo la woon ginnaaw ndeysaan waa Bou Siteu mi ni na mbooloo ah. Bou Siteu mi ko topp bëri Karbala Alma Dieye ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Karbala Alma Dieye Karbala Alma Dieye ñaari xale yaa ngi noonu di lewaatoo deuxième combat de la soirée ndeysaan ñu ngi fii ci arène nationale Ndiaye la ndaysaan njiital ga di Fallou Ndiaye grand combat bi dox ci diggante Bulldozer ak Caatu Yaraax ma ne ko Fallou loolu doy na mu ne ma déedéet ma ne ko lu ci des mu ne ma Ada Fass Jokkel ma ko déedéet Fallou xanaa jeex na mu ne ma déedéet combat bi ñëpp doon xaar dox ci diggante Laurent Ndiago bu Siteu Karbala ndaysaan cokkaas na léegi ndaysaan ñu ngi noonu Armé Dieye Kor Bara Armé Dieye daa bëgg a jeexal na ma ngay dóor Armé ngay dóor Armé ngay dóor Kor Bara fay na jël na ko jël na ko daan na ko daan na Armé Dieye daan na ko pakate yanu ba ci kaw dóor ci suuf oh ma ngay joow ma ngay joow